allee nag jàmm ci leeral point net tey nag ñu ngi daal di xëy rek ci xëtam gu santé au Sénégal une microalgue marine toxique découverte littoral li nga xamante ne rek maanaam mooy wérgu yaramu askan wi fii nag ci Sénégal dañoo daal di rek benn virus gi nga xamante ne rek daal nañ ko nemmeeku ci euh, boorub littoral bi maanaam rek ñu dëkkee ci wetu gi fii ci Ndakaaru li nga xamante ne rek daanaka nemmeeku nañ ko mu yàbb toxique dara ci wérgu yaramu nit waaye tamit ñu mën a xam ne euh, feebar bi lee dalay dikkee daal mel ni grippe ak ni mel wala sax sa yaram di tàng wala sax nga yam daal ay fatigue ay maux de tête ak ni ni daal ñu ngi ci defay ay yi tamit ngir xam euh, ni ni mel daal lan ma ko waral ndax buy ñëw euh, day daal di ñëw rek ci ab tàngaay balaa sax seddaay mu daal di dem ay trois mois rek lay daal di durer te sax bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne tamit ñu ngi doko ca foofa ñoom nee nañ loolu kat da lay indil comme sorte d'angine te itamit da ngay daal di socc sa yaram di tàng te itamit da ngay bëgg euh, tëdd sa su ne ndax da ngay sonn waaye rek bu ñu amee ab loo xamante ne rek ab ngelaw bi jugee ci sow jant boobu daal day daal di ñëw rek daal daal di ko indi waaye nag du yàgg dara te sax ñoom toll rek ci ñaar fukki at ba tey koy daal di am te xamuñu sax ana naka la mbir mi di demee tey ñi nga xamante mooy des scientifiques de l' de recherche pour le développement ñoom nag itamit amal na ñàpp loola kii ki nga xamante mooy institut sénégalais de recherche agricole ñoom itamit euh, xool nañ ni ñu xam ne ci njëlbeenu septembre gi euh, daal ñu daal di xam ne symptôme di bi lay nekk la ñu scientifique yi daal di xamle te tamit ñu ne bu fekkee tamit ba tey ji euh, turu loola mënuñ koo xam chercheurs yooyu nag nee nañ amul benn risque bi nga xamante ne rek population bi mën na ci am ay jiixi jaaxa